ngir wane seenu ñàkk ànd ci troisième mandat ci Macky Sall journal bi nañu dégg nañu démb leader yeewi askan wi ku ci mel ne meeru Géejawaay di Ahmed Aïdara muy wax ne waxtu taxaw ñàkkante ko ak Macky Sall dafa jot ngir xamal ko ne ko Sénégal santul Sall ngir wan ko ne ko moom Macky Sall moomul Sénégal yéenekaay bi nañu moom Ahmed Aïdara sàkku na ci mboolem ku dëkk ci banlieue bu Ndakaaru nga génn ñëw bokk ci manifestation bi xalifa Ababacar Sall ne ñu ci yéenekaay bi ñi bu ñu bëggee taxaw ne dañuy jéem a interdire suñu manifestation gi fi la ñuy fekk lu ñu ci góobe rekk nañu ko gar Quotidien nee nañu moom it dégg nañu ko démb muy wax ne Macky Sall mi ngi ne ay pexe ngir wut troisième mandat da koo bëgg a waaye du fi amee te tey ji ci àllarba ji ci la ñuy tàmbalee xeex bi ngir wan ko ne ko troisième mandat bi mu bëgg ci réew mi du jàll lu mu ko jaral rekk dinañu ko jaral réew mi Quotidien bind ne waaye yeewi askan wi pare nañu ci bépp fànn ngir aman seen marche pacifique bi ñu woote tey ji ci ngoon Sud Quotidien nañu yeewi jël na mbedd mi mobilisation bu mag la ñu woote tey ci àllarba ji contre seen liste bi ñu bëgg a génnee ci député yi bés bi le jour di ñu xamal ci xët mu njëkk ne attention tension ci dëkk bi manifester gi waa yeewi askan yi bëgg a woote ji ca ngoon ca place obélisque ci ngoon li ñuy ragal moo di fitna am ca fi ñu toll nag journal bi nee nañu ñëpp préfet bu ndakaaru la ñuy déglu ngir xam ndax dafay autoriser ndaje mi am deet le témoigné nañu ndakaaru kenn noyootul source ne ko ñoo yay ne dëkk bi wute wute ko toog ci xal jamono ji booy upp muy jàpp waaye yeewi askan yi woote nañu rassemblement ngir bëgg seen liste bi ñu génnee ci ñu dugalaat ko ci waaye it ngir waan Macky Sall nekkoon na génne ci troisième mandat Ousmane Sonko nañu Macky Sall ci test stratégie ci la toll waaye nag na bu ñu bàyyil suñu manifestation gu tey gi am ci fukki weer ak juróom-ñett yi ko dese ci bopp réew mi dootuñu fi organiser benn manifestation manifestation gi ñu woote tey tirbin nee nañu ab assemblée générale populaire la ko seeni borom jàppe nee nañu liñ ci jublu moo di jug taxaw wax ak ñi nga xam ne dañoo taxaw temm ci yàq démocratie réew mi Les Échos bind ne àllarbay tey ji du yomb ci dëkk bi ni opposition bi nee nañu daje bi ci obélisque la ngir manifester autorisation ñàkk autorisation la ñu ci yamale ñi fare ci bi ñoom it convoqué nañu seeni ndaw mu di jeunes yi tey ji ca siège bu ci ngoon jote jàppante eh, les économies ngi ñuy wax it ne démb ba deux heures et demie du matin dégguñu préfet bu Ndakaar mu wax ndax dañuy autoriser manifestation gi am déet Walf Quotidien nañu meneen mbir a ngi mu am ci yëf yi mu jar bàyyi xel mu de ndax nit ñi danañu génn dem wuy ji waaye yeewi ci seen manifestation gi ñu woote defi mobilisation bi Walf nee nañu lool it sa beneen ubkaal L'Observateur nañu àllarbay tey ji bés la bu am solo ci taarixu politique bu yeewi askan wi ëllëgu coalition bi lu ci bari tey jii ci lay leer tey la tànk bi di tàllee ko baamu banko ça passe ou ça casse L'Observateur nee nañu kii di Ousmane Sonko nee na manifestation bu tey bi bu amee benn débordement juróom-ñaari juge ca conseil constitutionnel nañu xam ne lépp ñoom la moom mi wax loolee di Ousmane Sonko l'observateur mi ngi ñu wax ne moom ak ñi mu àndal ñi ci pouvoir bi ñoo ngi taxaw ci seen wet ngir lu ñu teg rek ñu teggi ko ñi ci pouvoir bi kenn ci ñoom di Cheikh Omar Anne ministre enseignement supérieur mi ngi leen di dànkaafu ñoom ñi ci opposition bi ci xët mu njëkk Vox Populi maire njum bi di Cheikh Omar Anne nee na manifestation bi ñu ko woote bu ñu ko defee ci jëfi républicain rek coow di jub ñu kenn ci fitna waaye kuñ ci woo dinañ la wuy ba nga doy ko sëkk te lay demee léegi mu nekk cim réew tekki yoo fa dara jël arrogance yenu ko di dem ak moom bu noppi bëgg a taxaw naan da wax nu réew mi di doxee ñu dox dem ci le journal l'heure est grave loolee la bind ci xëtamu njëkk li ko tax a garaaw yéenekaay bi nee nañu moo di tolluwaayu politique bi ak jamono ju metti ji lan moo dal suñu réew mi laaj la boo xam ne ku xëy yam ci xët mu njëkk libération il faut nga laaj ko yéenekaay bi nee nañu ca Médina ak ca Dakar Plateau fu ci bàyyi ba Zakaria Camara di nelaw mu bettu ko ak gourdin dóor ko ko ci bopp mu faatu ca Dakar Plateau it ca boori clinique Azawus foofeet libération nee nañu benn taximaan moo fa doon xuloo ak ab kiliyaanam bu jigéen ñu jàppante fa ba taximaan bi dóor kiliyaan bi mu faatu ci kanamu doomam ju jigéen